allo salam man la ma vidéo bu Je di di wër benn Boy. Ahmadou Lamine Baké Afia Je suis bon non? Mbacke Mbacke la suis violé jabaram Je suis ci Allemagne mais Je bi tamit Ya por bahaya. Bang cucu besok. Mungkin gitu ya. Ya benar masih. Mana mon cucu bi? Bolam cucu bi. Saya sambi. Nee nañu ay talibé ñoo ko nëbb fële na le Allemagne mais nga xam ne leen jig Sénégal jugu leen Allemagne donc booy bi mom laa def sama story donc fekk képp koo xamante ne

nga violé sa jabaru baay bu la neexee nga ëmbal sa jabaru baay mais nag boo demee ba almaañ mineur boo ko violé buñ la jàppee nañ la jàpp ci kaso bi ñoom xamuñu ay sa baay ver de terre la dañ koy jaamu Sénégal loolu yëpp xamuñu ko fi Europe la moo tax yenn ver de terre yi seen doom yi bu ñuy jógee Sénégal di ñëw fii da leen di war a wax ne ne peut-être yenn ver de terre Sénégal dañ koy vénérer mais fii boo leen fi ñëwee Europe kenn du fi vénéré ver de terre doomu jàmbur boo leen fi violé tamit dañ leen ne ràpp tuj leen ci kaso donc partagé leen ma kanam gi comme ça ku ko mënti gis mu signalé ko ba ñu ne ko rap tuj ko ca kaso ba fii moom Europe moom tout le monde est au même pied d'égalité amul yow sa bàyyi Père Noël la ah bu la neexee violé ñu sutural la fi am sutura fii ku fi violé doomam day ñaf sa ndey sa kaso ba fii ay waaw moom affaire de kilifa la yooyu amu fi fii moom amut moom loo jàngul jàngul jàngul bu fekkee ne sa baay yóbbuwul la école mënoo bind sa tur mënoo bind sa da euh, mënoo bind sa sant boo yegsee fii Europe balaa nga fi teg sa tànk sa baay dala war a wax ne sa cucu bi braquet bi nga tëj ko boo ko tëjulee tamit fii def nañ ko ba góor bu nekkee ci mbedd bi sax di la doxaan di la harcelé boo demee boole ko ci police ba sax dañ ko ne ràbb tëj ko ci kaso bi waxuma laaj ubbi braquet dugal dem fi joxe xale bu am 16 ans

serigne Afia bi Falilou Mbacke bi ni bee boo ngeen livrer ko le plus rapidement possible képp ko xam nak nag il s'avance à protéger le violeur il risque d'aller en prison avec le violeur parce que fi Europe kenn du kenn du kenn du protéger violeur à partir du moment où yaa protéger violeur yaa koy héberger diko neub rek tu deviens complice ngeen partager nak le maximum parce que man mom bala may neex mom ñu ñeuf ndayam ci kasso voilà mun nga Sénégal bu la neexee nga eumbal say jabaru baay

ah ñoom vitamines yi ñuy lekk yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp pour tëddax jigéen ñi la du liggéey de xam ni day liggéey day lekk ba suur ne pour ma am force pour dem liggéey ñoom su suñu tegee bool bi buñ leen nee jaxatu boo ko lekkee di nga jógal jaxatu ba yëpp dañ koy jël lekk ko buñ la nee ñaam bi boo ko lekkee di nga jógal ñu lekk ko

parce que nga nit ñi tant que limité wuñu seen libido yi fu ñu dem nañ fa violé parce que xam na ñoom bu ñu ñëw Europe mënuñu indaale seen vingt jabar yi te nee nañu yaram cuccu loo ko tàmmal rek ah loolu lay dundee bu fekkee ne yow yow cuccu bi boo xëyee le matin ah loo koy tàmmal mooy dem ci jigéen midi dem ci jigéen day day dem ba matin da lay réclamer midi da lay soit soir da lay réclamer léegi nag yow bu lay réclamer mun nga ko dem defi ji sa jabar amul problème mais bu fekkee ne da lay réclamer benn xale bu am 16 ans wala taalibee bu góor nekk sa wet nga dem violer ko ça devient un délit moo tax mbàkke mbàkke bii nii dugg leen sama page ngeen dem jël foto ba ma ko fi defal yéen ñëpp ngeen def ko avis de recherche ba famille bi nga xam te ne ñoom ñoo ko héberger ñu génnee ko ñu tëj ko ci kaso bi. et que 48 heures bo len guenewul boy bi boo ko guenewul ah yeen ñi ko héberger vous devenez vous devenez complice et que allemagne buñ len jappé nañ len ràpp den ci kaso man nak kanam gi dina ko signaler parce que bu xol kanam gi xamné kanamu violeur la man dina ko yóbbu police des frontières pour bo traverser Allemagne parce que Allemagne ak Sénégal ak France ñom frontière nga baña jaar rek sama wutu keur parce que fofu tamit amna fa doom bu jigéen te boobaa moom boo dof dof loo man xam naa ba fa ngeen violé moom xam ngeen fa ngeen violé parce que nga sama rue bi boo leen fay sillonné sax ñun dañ leen déclaré violeur man loo def live spécial pour signaler leen parce que yéen ay passeport diplomatique la leen Macky Sall di jox pour ngeen dem violé ak ngeen dem yelwaan seen passeport diplomatique yooyu gel bu leen woowee <laughs> dégg sax néegi la sëriñ yaa ngi wane seen taat yi trên internet six bi mooy sextape yooyu ñuy wax noonu sëriñ yi dañuy sextape dañuy woo xale yi waaw wan ma sa taat yi wan ma ñoom xoolatuñu beeco de déedéet sëriñ la ñuy xool ñoom sëriñ yi ñu pare ñu naan waa kilifa la yow kañ ormal ko te ñoom ñi leen naw ormal leen ah ñoom ñooy wane seen tuccu yi trên internet bi ñoom ñooy violé xale yi am 16 ans ñoom ñooy violé xale yi am 15 ans ñoom ñooy violé xale yi am 14 ans léegi na mag boo demee mag ñàkk fayda ba sa cucu bi ah su turaloo ko ba di ko génnee ci xale bu am 13 ans du du jigéen yow daal fu mu xasanee rek nga ne xaamu dugal ko léegi fii ak amu leen seen bopp maam say bu xëyee ci seen tooxi doone man amam jot Sénégal yëpp yëpp yëpp man maa ci ëpp jot man man ma neexee ma dem toog ci kër ga di enquête si ba pare di wër yeen ñi ngeen violé seen tuuti yi fan ñoo ko wokk ci journée bi te ko ci internet bi yooyu nag am na xale yi ñuy wax naan dañuy jël seen baaraam yi di baaraam seen taat ñooñu dafa am ay criminel yu góor yoo xam te ne ñoo nekk ci yoon bi ñoom ñoo yàq xale moo tax may interpellé Macky Sall ne ko nga ñii nii mooy bàyyi nga xam te ne vingt jabar lal ba bool bi douze ba mu jox leen autorisation bu kenn amul ci dëkk bi

bu ñuy tëddee midi jabar bu ñuy tëddee euh, ndékki jabar bu ñuy tëddee reer yéen yéen a gën a fuuy Macky ci dëkk bi yéen a gën a yéen a gën a ëppal Macky ci dëkk bi ba pare Macky Sall leen ne boo leen violé ah Macky Sall du leen tëj ca kaso ba léegi nag kalifon maa ngi lay interpellé parce que Mbaye Gar mi dafa violé moom Marème Faye Sall dafa intervenir woote ñu génnee Mbaye Gare yow Kaliphone la ngay lambar lambay bi APR yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yow da commencé bëgg a xale ba màtt yow am nga ci màtt ah nga ci ngàdd ba pare Macky Sall ne la rap tëj ci kaso bi moo tax picc da nga xam sa bopp nee naa leen droit yi Macky Sall def yëpp yëpp yëpp pour baadoole yi la li Kaliphone sax moom jigéen la doon jéem a violer mais moom Mbaye Gare mi

allemand yi dinañu dina la jël ne la ràpp tëj la ci kaso bi te buñ la tëjee ci kaso bi man may njëkk a ñëw toog tàggee senegal yëpp est ouest nord sud ne am na mbàkke mbàkke bu ñëw fii viole doomu jabaram doomu jabaram moo tam ñii ay criminel lañu nga bu leen leen gisee bu leen leen boolee liir dañuy viole liir buy doo a judd dañ koy violé dañuy violé xale bu am 13 ans dañuy violé xale bu am 15 ans ñoom daan na doom turu rek dañuy violé jigéen dañuy violé góor moo tax boo leen gisee ñi am sant bii nii ñenn ñi di commencé ñëw jege seen doom yi jël leen seen doom yi ngeen nëb maintenant un homme averti maam lu mu moo leen ne mooy mu ne leen fii am na danger ay violeur lañu ngeen jaar na leen ndax xale bii violé doomu jabaram mbokkam violé na fi 27 enfants mhm. même famille bi c'est tout eux dans eux man seen cas de violu famille yëpp. naa ko jël yóbbu ko ci sama page bu bees bi Telegram tey ci loolu lay dox toute la journée dinaa dem xool yéen seen famille yëpp ñan lañ ñoto mos a violé ma def ko ca Telegram comme saa président bi fiy ñëw tamit bu ñu mënee dimbale ba góor yooyu nga xam ne saa bu ñu nekkee seen libido libido la ñuy xalaat li xalaat liggéey mën a leeral le ba

xanaa nga am benn taliban bu toog fële di la yónnee looy lekkee gerte bu bari looy lekkee euh, gros petit cola bu bëri yéen tàmm ngeen fépp fu ñu leen wax yéen yéen xeet boobu noonu yéen moom moo xeet boobu noonu fu ñu leen lii day yëkkati libido rek ngeen dem ma leen di fàttaliku ne macaroni baa yow Macky Sall nee na dañoo war a réglementer naissance yi nekk fële Afrique

ndax génnagul Allemagne viole bu bees la viol bi defagul un mois doomu jabaram la violé ba muy ubbi braquetam di violé xale bu am 16 ans bi fàtte woon na ne Mbàkke la sant fàtte woon na marabu la fàtte woon na leneen la na nag ñi ñu bul ñu ubbi seen braquet yi da ngeen fàtte seen sant léegi xam leen ne monde bu ñu toll nii amul Mbàkke amul seen amul jàllo amul lu mu munti doon boo violee xale mineur dañ leen ne rab tëj la ci kaso bi partagé leen ko ba mu yegg ci ñoom léegi ñi nga xam te ne pare newuñu parce que maam yëpp lay yaa ngi nii bu ma ñëw pare ne mën naa ñëw pare ne voilà ma mën naa ñëw pare ne wala mu ñëw signé wala mu ñëw déposé fiche am fii ba dimanche nag may naa leen tele fii ba dimanche à partir de dimanche nak dootuma jëlati benn parrainage dootuma jëlati parrainage ma ngi leen di nuyu di sant ngi dem liggéey bi sarax ma abonné telegram parce que foofu def archive yi depuis 2017 jusqu'à présent ak jémbe yi Macky Sall def fa lañ koy di préparer attaquer Macky Sall